Euh, monsieur Gaye nan nga gisee euh, déclaration bi njiitu rewmi il y a des échos là il y a des échos je ne sais pas si c'est non non c'est les ah, il y a des interférences microphoniques allô. non jàngatee euh, déclaration bi def. dit qu'il y a des interférences de micro. allô au niveau de la régie allô.

Euh, ñu ngi topp président Macky Sall pour mu wax ndax dina bokk ci élection deux mille vingt quatre wala déet mu leen wax bu jotee dinaa wax ba tey ci dix neuf heures cinquante cinq ba dix neuf heures ba vingt heures vingt peu de Sénégalais yaakaaroon nañ ne yaakaaruñ woon ne dina yegg fii mu yegg si ak réew mi euh, li tax nag. Euh, Euh, bette na mooy li mu defal Sénégal ak fi nga xam ne fi lay yégal réew mi ak force politique yi ko jàppale ni ñu toll ban président mooy toog lu mat cinq cent élus locaux ay maire ak ay président de conseil départementaux dajaloo te réew mi amu ci lu dul juróom benn téeméer ñu ne la dañu bëgg nga gunge ñu bu ñu fi bàyyi kan moo toog nekk président de la république kilifa gu mel ni sëñ ba Bassirou Mbacké nekk ci réew mi te waxu la bul def sëñ Babacar si waxu la lu mel noonu xalifa Ndiassane di la jàppale ñëpp xam ko Cheikh al Islam tey ñëpp xam ni mu la taxawoo ak ni mu nekkee sa wet ak ni mu la fonke constitution Sénégal may la nga am droit nekkat candidat ndax loolu réglé na depuis la le référendum bu 2016. nga xol lu yépp mu sëcc ma pare ma pare s'il vous plaît ma terminer sur sur mon raisonnement. Mhm. bo paree nga relancer. allez-y loolu yépp nga xool ko nga teg ko ci suuf jiital intérêt Sénégal parce que bëgg loolu yàq réew mi parce que li koy yàqan ci biir réew mi nga fas yéene jàkkaarloo ak loolu jàmmaarloo ak loolu pour que réew mi dellu ca lam nekkoon mooy unité bokk ndey bokk bàyyi. mooy liggéey bi buñ ko yàq pour gune yi am ci luñ jàpp loolu yëpp nga ne moo ma gënal may continuer di def politique ba sama réew di ci am jafe-jafe ndax ku nekk nga ko doon xaar ci xeex ci mbedd mi ku nekk nga ko doon xaar ci dànkafu ku nekk nga ko doon xaar mu jël décision boo xam ne c'était pas conforme avec ñoom seeni intérêt loolu moo tax ma ne la am na ñu bett mais li ci am solo ce qu'il faut retenir c'est une décision historique ndax ci réewum Sénégal Macky Sall décidé na tey loo xam ne lu nekk xeeñ nañ ko Afrique lu nekk wax nañ ko africain yi hissé na Sénégal au firmament du monde parce que fu ñu gënati tey lu ñu yàq suñ der ci bitim réew yépp Macky defar na ko tey. Euh, benn question rek dégg nañ ko mu utiliser ay termes yu fort lu mel ni j'ai un code d'honneur et je ne saurais faire moins que Diouf Senghor yow mi Wad, Yomi Wade euh, yow mi Abdoulaye Wade nan nga terme yu surtout nak j'ai un Adia, Adia mhm. Adia fi ma toog mhm. bi mu ko Netli, sama yaram daw na koy mhm. dafa am concept tu xam ne dama ci sax mouy la garmi attitude la garmi attitude te yow fuuta nga dëkk yow xam nga lan mooy ceddo koliyaabe Macky Sall code d'honneur de ceddo koliyaabe moom la taxawee Sénégal tey maanaam seeni maam nañ daan taxawee bi nga xamee ne eh, deñanke yi mas nañoo soxla wala Thierno Souleymane Baal ak Abdel Kader bi ñu soxla ñi ceddo koliyaabe yi taxawee woon jàpp naa ne code d'honneur boobu mu dellu si ñëpp ko tout ça ci ay politiciens sénégalais waaye en réalité c'est plus profond c'est l'Afrique ce sont nos traditions ce sont nos valeurs moom la réincarné aujourd'hui yombul nag ci un politique nga gis mbir mi mu ne gàññi nga gis lepp yaa ko moom nga ne ko fi ñuk ngir réew mi loolu yombul ci ñu bari ci Sénégal loolu tax ma gën ko naw tay ndax genn bu mu genn tay jii dina indi dal ci réew mi ndax genn bu mu genn tay dina indi dal ci réew mi par force la xam nga lu tax muy indi dal hmm réew mi daloon na sax ba pare waaye tey yàlla da ko euh, euh, déclaration bi da ko jox beneen légitimité bu bees lépp loo xam ne dafa war pour stabiliser le Sénégal ci ñi ko bëgg a yàq nos ennemis d'extérieur comme de l'intérieur Macky Sall tey am na la légitimité de leur faire face te tigga du toj kenn du yëngu c'est en cela que c'est important parce que Sénégal demoon na ba ñu toll moment boo xam ne ñëpp jaaxle woon nañu ñëpp yaakaar ne mooma ñëpp jàpp def politique bi autour du troisième mandat dama daan faral di wax ci en sourdine à certains de mes amis waaw opposition bi il s'accroche au troisième mandat de Macky Sall comme étant un leitmotiv bu Macky Sall waxul candidat la ñoom fu ñu jëm su Macky Sall ne dama dem bokkatuma 2024 ñoom fu ñu jëm qu'est-ce qu'ils vont présenter comme projet politique au Sénégalais yaakaar naa loolu la leen def tey moo tax ma ne la ce pays à jamais sera stable et aura les coups de France pour les sept mois qu'il reste encore au pouvoir à remettre le Sénégal en ordre. Il ne résigne parce que bon, ci commencement discours la Il l'a annoncé en montrant exactement tous les crimes qui ont été commis, toutes les conspirations qui ont été faites, toutes les tentatives de déstabilisation qui ont été entamées dans ce pays. nous, il va aller en guerre contre cela man je vais œuvrer pour le respect des institutions. parce que dafa jàpp ne dañ bëgg a faagaagal institution yi dañuy saaga président di saaga justice bi di xas fonctionnaire yi loolu ñu ko fiy def xam ngeen leen da ngeen leen di dut baaraam